jaa jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la maa ngi Brooklyn New York no gars yi nekkuma Brooklyn New York maa ngi ci beneen état comme ni ngeen ko gisee gis ngeen vue bi sama ginnaaw maa ngi ci beneen état euh, gars yi tey dama ñëw waxtaan ak yéen ci euh, problème mu euh, Fatoumata Fouta yi ak ànd sàmm jikko yi problème yu ñu am ñu gis Fatoumata Fouta Tampi di génn di wax wax yu ñaaw jëmale ko ci ñoom oustaz Matar Sarr ak waa sàmm jikko yi nga seen marché bi bañ koy def Fatoumata futa Tampi dañ ko fa tudd ilima euh, oustaz Matar Sarr moom moo ne Fatoumata futa njaay mi Fatoumata njaay futa Tampi mi ngi toog loolu nag erreur la bu mag boo xam ne ba ko waxee dafa jaaxal nit ñi ñu commencé yu ndax Fatoumata futa Tampi

waaye Adama Fall ba mu génnee euh, reçu ci la Fatoumata Fouta Tall bi ko nangu ci la ko Sénégal yëpp bàyyi ne kii jaam la nekk te dafa infiltré woon euh, kon infiltré Pastef infiltré euh, Y'en a dem ba ci biir mu weer leen waaye yàllaa ko weer ba mu feeñ Fatoumata Fouta Tall dem ba ci biir àqu Sénégalais yi dal ko ndax dañoo dem ba waa APR soxlatuñ ko Antoine Diome soxlatuñ ko daal di ko détruire comme ni ma leen ko waxee woon après ci lañ ko ci lañ ko euh, ci lañ ko bàyyi bañ ko bàyyee ba ñu bàyyi Fatoumata Fouta Tampi ci la commencé torox mu génn di wax ne mënatul fay location otom bi sax nee na dañ ko nangu tey ngeen gis ko ci appartement bi suba ngeen gis ko ci benn télé boo xam ne ñoo ne ko ak télé boo xam ne mal ajusté ci benn benn écran plat ci ci mur jigéen bi kenn xamul xeesal ba weex tàll kenn xamatul lu muy nduru ku jaaxle demoon ba fay kenn waxatul ci Fatoumata Fouta kon bu ñu gisee oustaz Matar Sarr daal di ko mayaat buzz loolu daf ñuy jaaxal oustaz Matar Sarr lan lay seq ak Fatoumata Fouta bi ba di ko may buzz est-ce que Fatoumata moo ne ko tudd ma ñu naan dañoo juum ak Baye Niass la ñu bëggoon ah, wax ba mu waxee Fatoumata Fouta Tampi ñu yuuxu leen pendant 3 minutes 4 minutes yo xam Sénégalais yi dañ ne mukk mukk Fatoumata Fouta Tampi da fay dem soxlawuñ ko ci affaire góor jigéen soxlawuñ ko ci ay manifestation mel mel da fay dem ci la wax nak na non non bay Niass mo fi nekk Fatoumata Fouta Tampi nek fi erreur bobu man mënuma comprendre Oustaz mata sar yow nga nek oustaz activiste xamulo li xew Sénégal fo nek gis nga nit bo bëggee crédibilité da ngay suivre information xana man mi nek Amérique sax de Brooklyn sax ah nek en retard touti ci ci ci événement yi ndax 20 la tay fait ngi di def vidéo xana man sax li xaw kon oustad Matar bu bu def erreur bi ñun war nañu xolaat ñu lan il tax di tuddu Fatoumata tay Fatoumata di wax ñom ñep dañ ko doon doxaan amna ay audio da koy ci oustad Matar est-ce que Fatoumata da jox pour ñu tuddu ko wala. lan moo tax ñoom bëgg bës moo tax ñu tudd Fatoumata Fouta Tampi en tout cas erreur bu mag la waaw léegi nag man damay génn rek may wax ne vraiment lii dafa ñaaw dafa ñaaw ci Oustaz Matar Sarr léegi mayat ngeen Fatoumata Fouta Tampi mu génn fu ne dina fa dugg di wax di di wax bay waxaale Ousmane Sonko bëgg bëgguma fépp fu ñu fu ñu tuddee Ousmane Sonko bëgguma ñu tudd fa loolu yëpp dafa bëgg waa APR woowaat ko voilà gars yi lii benn vidéo bu ndaw la rek man la Mister Shake sama gars yi nañ ma il faut que may def vidéo chaque jour té liguey bi moom dul permettre may def live waaw mais xam leen ne ma ngi suivre information yi suma ma mëna né def chaque jour ben vidéo bu 4 minutes 5 minutes dinaa ko def xam nga di leen ñaan ngeen like ngeen partager vive le président Sonko vive président euh, euh, euh, vive yeewu askan bi vive le Sénégal Fatoumata Fouta Tampi dañ ko wara a xam nga bu leen ko may buzz loolu mooy sama message tey jaajëf ba beneen merci